mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun sans limite TV tey nag ñu ngi fii ci euh, Soumbédioune Gueule Tapée li tax nag ci ñëw yéen ñëpp xam ngeen ko waaye dégg ngeen ko itam euh, moom mooy euh, génnuk àdduna capitaine Sané Mbengue moom nag moo génn àdduna depuis aljuma ba léegi mën nañu wax loolu fi mu génnee àdduna nag moom mooy fii ngeen ngeen di gis mu nekk sama ginnaaw di géej dañu faral di wax nag naan jàmbaar bu dee ci xare wàcc na moom nag dafa maare ji woon waaye fu la jaaree ñàkk bakkanam moom Sané Meng nekkoon taaliba Cheikh euh, fekk yaayam jotuwaat kàlla la a ñàkk yaay lool itam moom sànne ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te xaare ko aljanna jéggal ko ay bàkkaaram dañuy dem nag ci mbokk yi dem ci ñi nga xam ni itam ay xaritam lañ dem ci ñi nga xam ni itam ñoom na daan àndal daan liggéey fii nga xam ne moom mooy ci géej gi laaj leen lan la ñu mën a wax ci ki nga xam ne moom moo génn àdduna tey di Sané Mbengue mu Serigne Babacar si euh, ñu koy ñaanalaat bu baax a baax yàlla yërëm ko taxaare ko aljanna jéggal ko ay bàkkaaram li mu fi bàyyi mu bëreek mu néew yàlla na ci yàlla teg loxo te barkeel bi jaay Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam dañuy doxantu rek dem seeti mbokk yi laaj leen lan la ñu mën a wax ci ki nga xam ne moo génn àdduna tey eh, di capitaine Sané Mbengue Sans waa TV. waaw maa ngi nuyu site bi waaw di nuyu waa Soumbédioune yëpp ak Sénégal ñi koy seetaan ñëpp waaw bu dee Sané la moom mën naa ci wax parce sama xarit la woon. maax moom ñoo màggandoo quoi ñoo fowandoo biñ nekkee xale ba léegi ñooy ànd avant ñuy dugg école lañ commencé ànd kon loolu yàgg na waaw mu nekk nit boo xamante ne nii jàmbaar la woon pour nangu liggéey waaw parce que bi muy bi muy gimmi di xàmmee dafa am nu mu fekkoon seen kër mais tey bu seen kër demee ba am tur ñu koy tudd moom joué na sa rôle bu rëy waaw parce que ñoo màggandoo te xamante nañ joué na bu rëy mu nekkoon koo xamante ne ku nangu liggéey la moom lañ ko xamee mu nekk jàmbaar xam nga nekk référence waaw nit ku baaxoon la tamit alalam daawu ko boole kenn waaw ku daan def social la daan na partagé lu bëri waaw daan na partagé lu bari nit ku daan def social la c'est nit koo gis nag ci àdduna xam nga xam nga say jikkooy bopp yoo xamante ne nii yow la concerné waaw mais si cadre nit ku baax mënu ci génn parce que daan def ay social ñu koy gis daan na dimbali ay nit ñu koy gis ku mënoon maye alalam la jàmbaar la liggéeykat la parce que moom bi muy gimmi di nekk mool peintre la doon liggéey peintre waaw benn benn benn rak rakk la si papam quoi moom bu nekkoon këram mu nekkoon si atelier di liggéey pentre si jamono yooyu seen kër am nu mu meloon munu ko digérer mu bàyyi liggéey boobu ñëw nekk mool waaw diggante bu gàtt jàng na fi géej xam nga ba am fi li mu fiy am mais lépp ndimbalu suñu borom ak njàmbaaram parce que man mii di wax a yow si géej la ma fekk dem naa géej lu ëpp dix ans muy doog ko dugg géej voilà kon te te am na ci man lu ma amul. am na ci lu ma amul ñun ñi doon ànd ñëpp moo ci ëppoon matériel xam nga moo ci ëppoon ay bien te amee ko woon fenn lu dul si géej gi waaw kon loolu day wane rek ne moom demkat la woon nit ku nangu liggéey la waaw. jaanam wàcc na nag parce que nit ku ne boo nekkee ci waar liñ naan gaynde ci àll lay waaw looloo ko dal waaw ñun ñëpp d'accord nañ ne gaynde la boo sumbu jun yëpp boo laajtee jàmbaaram moom kenn du ko werante waaw nit ku jàmbaare woon la nit ku jàmbaare woon nit nangu liggéey fonkoon waajuram nag surtout papam ak yaayam waaw mës naa mën naa témoigner benn affaire boo xam te ne fekke woon naa ko mu tëmb maare teer xam nga li ñu naan frais bu diig mooy maanaam frais i nga jëndoon essence beeg meeb beeg nourriture yeeg yooyu day da ngay da ngay kale ñaata lay doon yenn saa mu nekk 600000 700000 si maare moom bi mu feree 700000 xaw ma bi mu demee géej dafa kaay jàppul jën mais li mu desal si jën bi mu ko jaayee 150000 la. waaw jour boobu maax moom ñoo toog ak sama beneen xarit bu ñuy wax gànn ñu toog yaa ji jéggi tali fekk ñu fii si gaal gi mu ne saane sama frigo dafa yàqu saane kan mu ne ko waaw mu ne ko frigo lu muy jar mu ne ko gis naa benn buñ may jaay venant la mais waa ji cent mille la wax moom cent cinquante mille yooyu desu di jënam jaroon cent cinquante mille noonu la ko joxee yaayam suñu kanam léegi day dem lijjantiwaat beneen sept cent mille bu mu préparé pour dem géej waaw pour wan la rek ne fonkoon na waaye juróom waaw daaw ko fowee ay rakam yëpp tey bu lu ñu am tey moom moo tax waaw loolu moom mën naa ko témoigner parce que maa moom dañu xaw a niroo jaar jaar moom dafa mag si famem man ma mag si sama famille ñu fowandoo màggandoo waaw tey seen kër bu ñu koy tudd moom moo tax waaw mengeen bu ñu koy tudd moom moo tax parce que bi mu màggee am na lu mu fa fekk te moo ko dindi waaw kon lu ñu mën a wax rek mooy nit ku jàmbaare woon la te am na ñaanu waajur te am nañ ci moom yaakaar tamit am nañ ci moom yaakaar. ba ngeen yëgee la def ci yéen. waaw muy metti na na trop metti na trop c'est pas la nag li dal ñu. parce que am na suñu beneen xarit boo xam ne kaa bu mel ni moo ko daloon ñu koy wax seer seer Diop ñun ñoo bokkoon groupe doon ànd jour boobu moom ñu koy jëli saane mii moo moo gaalam la ñu yóbbu woon moom mu ngi ci woon waaw moom yii mel nii bu ma saan am du ko tënkamlu lii bu daloon keneen ñii di dem di ko sauvé ji moom da ciy bokk waaw moom daawul tënkamlu yi waaw mais yàlla moo def mu dal ci kawam waaw te nit moom boo waree génn àdduna du dara lu koy fànk du dara mais nit ku jàmbaare la nit ku nangu liggéey la waaw li ñuy li nit ku baax di yaakaar daal am nañ ko si moom waaw yaakaar nañ ko ci moom waaw loolu la. waaw ah, salaamaaleykum ñoo ngi nuyu waa tele bi di leen sant di leen gërëm si liñ ñu bëgg a defal tey di sant tamit dëkkandoo yi ak mbokk yi di sant tefes yëpp fépp fuy dëkkule Lebu rek ñoo ngi lay boole si nuyu bi di sant yàlla nag di sant yàlla bu wér si li xew metti na nag parce que metti na torop mais dañuy sant yàlla te doole suñu xel si yàlla xam na xëy na moo ñu ko joxoon mission mat mu a xaar mu récupéré waat jaam bi parce que mission mat na si kaw suuf lu mu jëflante ak ay rakam nag rafet na tete nañu yiir nañu yërëm nañu tàggat nañu si liggéey ak jom parce que man xëy rek laa xam te loolu si nekkee si man moom moo ko def si man ak sama yeneen rakk yi fi nekk yëpp waaw. mën nga dikkalaat ci affaire yi naka la demee. waaw mun histoire am histoire euh, li ko dal si géej ñi du histoire du xeex du dara daa dem bay waar lënd bi mu waree dem maak moom ñoo toog di waxtaan bi muy pariyaas di defar bagage yi ñoo toog nii di waxtaan mu defar ba pare waxtaan naak moom nice après moo jóg dem ba ba muy tëmb sax ba mu ñëwee sama ginaa fekk naa ko mu tëmb dem waaw ñaari fan ñetti fan lay am ñibbisi ba mu demee liggéey na ba pare matal liggéeyam bu muy wàññeeku si si la yàlla suñu borom def li gën si moom te fu mu ko defee sorewul su ko defee sa biir géej amaana ñun duñ si teg suñu bët ak taxawaayam ak baaxam moo tax yàlla indi ko ba si dëkk bi def li muy def pour ñun ñu mun si jot tey ji su fekkoon tey ji lu ñaaw loo def si kaw suuf kon yàlla fa mu ko tegoon fa koy defee ba ñun duñ si teg suñu bët dañuy xëy naan saane rek saala rek saala rek ba mu am ay at suñu loxo te duñ ko gis mais yàlla rafetal lii gaynde la nag waaw man jooy naa ba tey jii dama am dëgër laay nii rek samay kanamu morom nii di waxtaan ak nit ñi nii pour mën a soulager wu mais gaynde la ñun xam nañ ne gaynde moo dee si waar ba parce que bëggul dara lu métti ay rakam si kaw suuf ba si ay jigéenam lu xew si kër gi nag day taxaw waaw lu mu sa xew si kër gi day taxaw daf ñu tàngat daal ñun daal ba pare daal waaw daf ñu tàngat ba pare bàyyi ñoog li si des waaw léegi nag njaboot gi mu fi bàyyi nag si kantanu yàlla dinañ topp ndigal parce que ñun lañ fi dese ñun ñii di seen rakku papa ñun lañ fi dese mais ñu ma déggal lañ nag waaw na ñaari soxna ñaari soxna yu baax ba ñu dalee see grand yi ba léegi jafe-jafe amul man samay gaañ lañ nag waaw man maa leen gën a yab te suma aawam bi nekk si biir kër gi ñu ko wax Ndeye Fatou noonu laa ko yebee dama naa ñëw sa bëgg ko waxloo yëngal ko nii mu commencé kër gi di riir waa kër gi naa ma alaaji génneel kër gi may la noonu la bàyyi euh, mu xale bi mu yar noonu ak euh, jabaram Khady Bissou mooy ñaareelam moom it nekk ku baax waaw lu mu am nag indi na si kër gi muy lekk di naan du rafet nag waaw jàmbaar daal dee na sa waar ma waaw waaw di delloo njaal mi jëleen jëleen jàll ah ñu koy ñaanal tamit fi mu jóge nii fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla ko yàlla wane rek rasulilaay wane la ak taaliba Cheikh la nag bu dëggu fàtte naa loolu ku gëm sëñ Babacar la ak sama yaay ku gëm sëñ Babacar ay taaliba pire pire tuwaawan dal bi mu nekk nii amaana dina fa def loo xamante ne sax waa dal bi dinañ ko yëg danaan dem géej ñu ne ko tuwaawan des na une semaine mu teer maare génnee ndawal loo xam ne pour dalu tuwaawan la galaase ka ba mu rafet su jigéen waa kër ga di dem mu ne leen ndawal laa ngi nii teewul suñu demaatee day dugg si boulangerie bu mu bari moo xam lu mu doon meew café ay kaas beer sax kaas yaa ngi si kaw si néegam yooyu la ñuy yóbbu tuwaan ay kaas vert moom la ñuy yóbbu sa chaque année waaw mu nekkoon taalibe pire doon na ko si sama yaay nag sama papa la mais moom sama yaay la jël si taalibe cheikh waaw loolu gaalam amul benn gaalam bu muy liggéey te du si desin sëñ Babacar du si desin sama yaay gaalam yëpp sama yaay la leen tuddee Kor Gueye amul benn gaalam bu mu tuddee beneen nit bu dul sama yaay kon dañuy sant yàlla fo mu jëm yàlla na fa fekk waajuram bu jigéen yàlla na ko teeru te sama yaay dina ko teeru parce que liggéey na ko fi waaw sama yaay dina ko teeru kii nag xaritu benn wëllëreem la ñu koy wax mbay Seye waaw ñu koy la ñu koy wax Elas ñoo bokk benn papa kii tamit rakam bu jigéen salaamaaleykum leen def dañuy waaw Sané moom li ma mën a wax si moom bari na ndax nekkoon na sama mag la sama xarit la sama lépp la waaw moo tax euh, am na loo xamante ne nii moom dañ koy bàyyi sunu borom rek ndax man am naa ne su ma naat sa ñaa taxaw ne moom lépp loo xamante ni da koy def di ko wax di ko jëf dina ma woo waxtaan seeg man waaw te moo tax euh, nit gën ma koo xam gëm naa ne du yomb ndax lépp loo xamante ne da ciy dugg wala da ciy wax ak lu mënti dem bi mën naa waat ne ne balaa mu si waxtaan ak suñu kilifa muy papaam sax man la si njëkk waxtaanal ndax jege bi nga xamante ni jege woon na ma ko bien yi nga xamante ni moom la am nit ku amoo lu dul say bien nga jox nit confiance nga ne ko say may mbir yëpp say loxo lay jaar ba si këram bi mu koy tabax di ko démarré si démarrage ba fondement beeg lépp samay loxo la jaar ba yàlla def ni mu def nii ba kër gi ni mu pare mbir lu mu gaalam yi muy defar yëpp man maa koy defaral gaalam maa koy defal lépp yu si bëri lu muy dugg da siy waxtaan ak man ba pare doo koo def moo tax lu mu mën a wax si moom dafay bari moo tax mi situation yi nag ni mu demee dañuy force ni di wax rek mais kàttan ak doole yu ñu war a mën a waxee sax dese nañ ko am ndax tey jii bu ñuy wax si moom mi du jeex ndax jàmbaar dëgg moo dem dama ne ñii saa yoo ñi mu bokkal ndey baay ñoom ñàkk nañ waaye ñoom it gënuñu maa ñàkk man mi nga xamante nii nitam laa xaritam laa ndax lu bëri dama ko dund ak moom waaw moo tax dama koy ñaanal rek suñu borom xaaral ko àjjana waaw fi mu jëm gënal ko fi mu jugee leen di jaajëfal bu baax. li ma mën a xam si moom de euh, mooy sama cousin Germaine la woon parce que yaay papam ji ko ak sama yaay ñoo bokkoo benn yaay ndax si dool yi booy doon wax kenn ki frère ñoo bokkoon ndeex baay keneen ki copain intime la mu féete si man euh, goro bon donc daal euh, li ma xam si moom man ko daal xam naa daal liggéey na ba xëy wi ñu borom ba di daan dooleem waaw loolu daal laa mën a wax si moom bàyyi na fi njaboot daal yal na ko yàlla a àjjana te jéggal ko te yërëm ko te oyoful suufam si kawam waaye daal laa ma a si moom xam naa daal liggéey na ba xëy wuy jut ñu borom ba daal si lii ma xam si moom man ka seede que jàmbaar jóge na fi. moom ba dem sentir benn feebar ci moom wala. ndogal yàlla bu dee ñëw moom moo frère bu la si kenn nax feebaraax lépp dem rek dem rek dem rek. amul looy sentir ak luy ñàkk sentir ñu bon boobu moo ñu ko joxoon jëlaat na ko comme ça moo na fi gën metti à condition ko ñu am si rek dee na mais quant ay nit ñoo ko indi ba jëbal ñu ko. ñu jébbal ko ci ñu borom donc sant yàlla la waaye moo ne fi gën a métti parce que pas mal de gens yu dee si yu mel ni ba léegi kenn gisu waaye ba kenn gisu mais quant demoon na si jàmm ñëw na si naxar naxar goo xamante ne ni ñuy méttitlu gëmloo ko ci ñu borom ba eh kenn c'est de destin kenn mënu ko éviter xanaa mu mu ñëw rek yéex rek li ñuy wax mais kenn mënu ko éviter ba kenn bu du de ñoom de waaye waaye loolu lañ si mën a wax quoi Papa ginnaaw ba ñu la jaale ki nga xam ne moom la ñu bokk mu dem nag ci anam bu doy waar waaye nag dañuy nangu ndogalu yàlla suñu borom ndax nag bakkan bu ñam dund alaakulli yàlla dina ñam de ñu ngi la koy jaal bu baax a baax di wax lan nga ñu mën a wax ci moom. Ah, li ma mën a wax ci moom bàyyi na parce que bi ñuy sant yàlla sant yonte bi sallallahu taala wa sallam sant suñuy waajur yàlla moom ko joxoon yàlla ko jël il ñu ndogu sant. sant yàlla bu xam ne comme moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat ñu gëm yàlla ñoo xam ne ku ñam dund di nga ñam dee waaw bésam bés mënu ko passé nag wante li ñu mel sedd si moom jàmbaar la te julli la woon daana jël alam di ko di ko mbir nit ñi mën naa la wax ne tefes su ma ku mu maase but ba but su la mënu si géej doo ko mën ci géej man mi papaam toujours dama koy ñaanal si moom ak ay rakkaam ñu ma seey sama li ñu seey sama xol yal yàlla seen xol si barke Sall moom ay rakkaam yëpp lañ taxu lañ ma ay rakkaam yi góor ak ay ay sëram parce que ñoom lépp ba ba léegi ñu ngi jooy guddee bëccëg parce que nu mu leen nu mu leen ñu ak nu mu leen yaree ak lu mu leen tàmm ci liggéey ba tey xale yi nekk Espagne ay rakam ba tey ñu ngi jooy maanaam dafa suba ne la muñ leen muñ leen ngeen xam ne yàlla moo ñu ko ñoo yàlla ñu demoon na pour liggéey dem liggéey dem liggéey lu mu dem pour liggéey ginnaaw yàlla te pour waajuram ak njabootam ak ku xam ne yaa ngi si sa bës a nekk si moom waaw dem na nag waaye nag yàlla moom soo bëggee mu bëgg ah si soxlaa da ngay ñàkk waaw dem nañu géej ba muy dem temps bi neexoon nekk lañ ba mu yàlla def muy ñibbisi sa géej sa temps bi ñu suux waaye man histoire bi ñu bëri xam waaye ko xam ne moo nekkoon ci ànd ak moom mu ngi dund moom wax tuuti te ba ma tey suba moom wax ne Sané ñi jëkk a gaañu ñooñu la mënul supporter comme mooy capitaine gaal te li si gën am imp ki gën a mooy ñaari xale yi xam ne ay xale la ñu ñu leen ñu dee ci ci kanam mënu ko supporter ñu yokku lu ñu yokku si géej gi ak fiq yi mu doon fiq yi moo dem ba amatul doole parce que xale bi nee na Sané mi ngi gaañu diggante timis ak geewe ak geewe ah mi jeudi alxames parce que boobu temps Sané sonn sonn boo xam ne mu ngi koy defal ah Sané ngi wax moom nànk nànk am na benn moon boo xam ne dafa bëggoon bëgg a daanu si jéeg xale bi dem di ko jël jàppale ko di ko jàppale bu mu ñëwee fekk Sané wàcc ci liggéey mu defal leen pourtant gaal gi feet na dell ak ndox. ñuy manipuler di manipuler ba beneen gaal tombé ci ñoom mu tombé ci ñoom yàlla def ñu indi leen ñu bi ñu indee nag dama yokk sant waa Soumbédioune parce que but ba but muy góor ku jigéen lépp lu waay man def nga ko si di gërëm timit waa Kayaar di gërëm waa Gendar yi fi nekk di génn ay xaatam yi xam ne ñu ngi si Soumbédioune ñi si kaw ak si géej ji ak ñi si kaw joor gi parce que amoon na amoon na ay xaaj ci kaw joor gi am xaaj ci kaw jéej ci jéej waaye ñoom ñëpp bi ñu déggee yëf yi depuis bu ba samedi bi biñ koy rob kenn toogul man dama dem ba mujj bi euh, damay wax sant yàlla parce que lu ma gis doomu aadama ak lu ma gis si ay nit si si jàkk ji ak armeel yi ak ñu ngi koy yóbbu ak ni mu tawee taw yëpp ku si nekk bàyyi sa soxla ndaw ginnaaw ginnaaw yàlla ak yonte ak jëmu saane ak ñi mu àndal gën a sant yàlla gën a sant yàlla ma ko joxoon nag damay nangu yàlla ma ko joxoon gëm naa li ma xam ne yàlla moo ko jël dama koy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xëy àjjana yàlla suuf seen ko lu pari pratiquement quatre ans que ñeent fukki at ñi jënd tuma xaru Tabaski yëpp moo ko yore yëpp moo ko yore yëpp yëpp bëggu sama dara na xi yi jigéen ci mi ak ay frèm yëpp ñoom ñëpp ñu bokk ñëpp tout frèm yëpp ku si nekk lu war sama diggante maa yow yaa ngi koy def waaw sonn ma si dara la ma soxla si ñoom ñu ngi si yenn saa yi dama xam ne ay boom kër yi ay kilifa bëgg ma ne wax dara sa maay dafa sa bopp mu suñ ko yëgee dañuy mer waaw ay xar yu am yëmmaa di ñaan tamit sama euh, jabaat yi si kër gi ak sama góor ñu ngi leen ñii si wàññi ñii samay jabaat lañu ñuy samay góor ñu samay sët lañu dépp affaire bi amee ba léegi kenn nelawtu kenn nelaw waa koñ muy commencé Gueule Tapée Mboti Pam Fann euh, Médina kenn bàyyi kenn bàyyi sa sox ñu am ñu xam ñu ngi dëkk ba Ngor ñu ngi dëkk ba Wakaam ñu ngi dëkk ba waa euh, nu di euh, kii waa yéen ñaari ñàkk njaal liñ fi yëgal. ak daal mën nañu wax ne capitaine nu ñëpp la woon. capitaine nu bu mag bii mu yore nii boobu. soo xoolee ba ñëw taal bi sëñ Babacar la ceet bu mel ni lam sëñ sëñ Babacar la siy nataal bi engin bii soo xoolee sëñ Babacar moo ne si mi ngi ñuy wax naan mais gaalam gi ay photo sëriñ Babacar moo ci nekk. gaalam yu ma am yëpp bi yaayam génn àddina waaw côté bi tur yaayam tuuti sëñ Babacar yu ma am soo xoolee côté bi yaayam moo si nekk soo xoolee sëñ Babacar si moo si waaw. daana def nag seen daare bu mu nekk si ñu war a dem Tiwaawan nii ndawal li yëpp moo koy toppatoo ñu fee nekk yëpp su ñuy dem Nimzaat moo ñuy toppatoo ba ñu moo jox chérif bi nekk Nimzaat mu jox ñu chérif Cheikh Cheikh na xaritam la woon te yëpp la woon dégg naa yëg na ko xam naa xam naa dafa xat-xat moo tax ñëwul waana saane saane chérif la woon chérif mooy doomu Cheikh na boo nekk xayma ba waaw xaadir yi waa murid soxla suñu amee suy dem mu jox leen ndawal yu yóbbu waa euh, laayeen suñu soxla ndawal suñ ko fekk mu jox leen waaw ama ma wax ne ma saane yoo xew si jéet su mu jum su ñëwee naka nanga muy bànneex naqar yépp mooy def embroxage jox leen te ma xam doxam damay tas ay nit sax ñiy gërëm saane am na ay mag yu toog fii xam ne fii jooy liñ ba sonn wax leen di saan yi defal te du ma ko yëg ba sànq nit ñëw suba léegi dafa jooy ba sonn li ko dafa Sané daal Sané ñëpp yàlla bu ko cet jit su bàmmeel loolu laay ñaan yàlla yàlla bu ko yaatu ñu ñu nag yàlla may ñu muñ ñu xam ne moo ma ko joxoon moo ko yóbbu dama koy sant yàlla nag waaw dama koy sant yàlla yàlla boo xam ne moo ñu yore ñu si des yàlla ñu yàlla xolu muñ ay rakkaam yi nekk bitim réew ak ay rakkaam yu fa nekk ak samay jabaat yi nekk bitim réew yëpp yal yàlla guddal seen fan yoo ko seen taxaw ay mboolu mu jullit maa ngi gërëm tamit yéen parce que lii euh, dafa nekk loo xam ne dafa baax ñu bari di dégg histoire yu mel ni histoire yu mel ni dafa baax ñu koy déglu parce que ñu ñu mën a xam ne su mujjun yii mag ñi ci demoon yëpp jëlaat yëpp dem na xam naa su mujjun fi ñu ma fa mag léegi ci nit su matu fukk du bari ngi Maísima, Maísima 75 ans waaw Maísima 75 ans waaw loolu gën ko sant yàlla nag yàlla waaye nag naa xam ne pour affaire caaxaan yi buy cigarette tuxu yàmba naan sàng yëpp bokk bokkuñu si sama njaboot kenn mësu parce que man dama fi jaar suma ko def waaw xam ku juddoo Gueule Tapée ba mu Gueule Tapée ba tollu heure bii loolu xamuloo ko waaw def na si jéeg voilà mu ngi noonu ay soxnaam mu ngi fi soxna baax la. jigéen yu yu yu ngi nii jigéen yu jàmbaare ngi nii dama di ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal seen fan yàlla mel ne xolu muñ ay jigéen yu jàmbaar lañu ñaari soxnaam yi dama di ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan yokk seen taxawaay si bàkk sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf mi ngi noonu ñoo ko déggandoor ki nga xam ne nag moom mujjee def témoignage moom mooy way juróom bile wax nag ay kàddu yu sedd yu rafet jëmale ko ci ki nga xam ne moo nekkoon doomam di capitaine Sané moom nag dem na bàyyi fi ñaari soxna bàyyi fi njaboot taalibe Cheikh Pire tubaarkàlla dem na fekki ki nga xam ne moom mooy yaayam dem na ci anam boo xam ni yàlla suñu borom moo ko bëggee noonu ndax dafa demoon pour liggéeyi ñu koy ñaan rek yàlla yërëm ko te xaare ko aljanna jéggal ko ay bakkaaram li mu fi doon def ñëpp xam nañ ko euh, dégg ngeen témoignage yi ay xaritam ay am di jàmmam li nga xam ne wax nañ ko ci ki nga xam ne moom moo dem tey euh, di capitaine sànne yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko na jullit piir dem na nit ku baax nit ku fonk nit nit ku fonk ak njabootam waaye fonk itam ñi nga xam ne ñoom la bokkal ñu koy naanal rek Serigne Babacar teeru ko moom ak juróom bu jigéen bi jaay Seydina Mouhamed alayhi salaatu ba yi jërë ngeen jëf sans limite TV.